l'investiture. Les ovations de la salle, l'ovation de la salle pour euh, accueillir Bassir Diomaye qui va prononcer son premier discours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 Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Excellence Nana Ado Akufo Ado, président de la République du Ghana. Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie. Excellences, Docteur Julius Madabio, Président de la République de Sierra Leone, Excellences Umaru Sissoko Embalou, Président de la République de Guinée-Bissau, Excellences Général de Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, Excellences José Maria Ferreira Neves, président de la République de Cabo Verde. Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. Excellence Tiemoko Meile Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence Colonel Malik Diaw,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 à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pères africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec et une démocratie Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. discours du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, après sa prestation de serment en direct du centre des expositions de Djamnyadjo. Il a pris l'engagement d'être le garant de la Constitution. Un Sénégal qui aspire à beaucoup plus de souveraineté. Un Sénégal où la justice sera indépendante.